presse bi déglu ko pour consommer ko mën ko relater nag public bi mais xër gu mu am si man vraiment ak aussi xol bi muy demee moo tax ñu ne nañu def point de presse bi pour xamal sénégalais yi que ni albumu Pape Diouf bii di génn Jëri ngoone production ñoo yore exclusivité bi et ñu koy ñaanal nag may sàkku Sénégal ñu ñaanal ko ndax xale la te am na jom xale la aussi et que soxla na ñu soutenir ko ma koy wax ne ko maam bul ragal yàlla dina def sutura ndax fi nga ñëw si sa mag nga si sa mag nga ñëw si sa xarit nga ñëw si sa ay mbokk nga ñëw et ñi ngi fi fekk aussi dañ lay ubbil à bras ouvert muy suma manager maxtar di sama rakk Xaadim ak tout le staff ñoom Jibi Fay ñëpp a ngi fi su ma nee staff bi rek yaatu na ndax léegi loo loolu la musique laaj musique li mu laaj mooy coalition bokk ndey bokk baay Sofia wax na ko sànq donc ba ci yeneen artistes yi nga xam ne bëgg nañu soit sentir nañu tey liggéey ak Mame Cheikh bu leen am jeune ñëw leen ngeen seet si ko ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar donc maa ngi nag gàttal kàddu yi ba incha allahu rabbi album bi génn ndax xam naa ni Pape Diouf chaque année bu jógee studio dina ne ah sawaay fan lay lan lay def nag lan la war a def waaye nag loolu moom dañ koy fanaanoo et que loolu laajul communication bu bari loolu dëxañu la laaj mi ngi mel ni rek mbër mu war a dem ca làmb ja alaaji Bakar yaa ma ko gën a xam communication bi danga koy gàttal di yeewu quatre heures du matin di entraîner di def trois séances par jour di teel a tëdd fekk sa bopp denc sa bopp ngir boo génnee say supporter ah sa nelawul ñu paree vingt yi ñun ñooy xool par rapport ak timing bi ñu am su fekkee temps bi permettre nañu ko ñu génne lépp suñu ko temps bi permettrewul maximum ñu génne quinze titres incha allah album bi dina génn décembre ci kàttanu yàlla na ko thèmes yi bon c'est des thèmes surprise vraiment bëgguñu ko dévoiler euh, mais daal benn bi nga xam ne dinaa ko ci wax mooy ren album bi jigéen ñi laa ko jagleel parce que léegi senegal dafa bari ay jomma ñaaw waaw jomma ñaaw yi fi bëri trop ndax dangay gis koo xam ne day ñëw fekk jigéen te jigéen dama sentir ne jamono yu mujj yi dañ leen di sonal di leen métital di leen nax da ñëw fekk xale bu ndaw kër yaayam nga màkk yee ñëw maanaam nax ko walla nga fekk ko muy jàngi walla muy dem ca marché ba nga ñëw maanaam bëlde ko fexe ba tooñ ko après nag won ko ginnaaw bu ko defee xale bi day découragé loolu mooy waral ñenn ñi di taxawaalu wala ñu dugg ci lu ñu warul dugg donc jomba ñaaw yi nag laa bëgg a xam naa ne moom sama gars yi dinañ ma sànni ay xeer mais ren moom benn morceau boobu laa ci maanaam may exclusivité sénégalais yi mooy les gars attention ku ci naxaate ba décembre moom arrêté parce que dinañ la démasquer moo jomma ñaaw am na morceau bu tudd jomma ñaaw donc way naa aussi beneen thème ma may ma maye ko muy deuxième titre bi may waxee rek muy man ak woy man ak woy ma tuddee ko sama seex ndax dama gis ni ko woy dafa fidèle ci man maa ngi naan donnee ko ci ay maam jàngee ko ci ay coono ba mu nekk sama xarit woy merci beaucoup donc waaw ndax nag donc doomu géwél laa nag wax dëgg yàlla kon ñaari thèmes yooyu na ko sénégalais yi retenir muy jumeau sama diggante ak way way sama seex bi moo ma sagal muy jomma ñaaw donc muy euh, li ma laaj sànq ah, euh, sama sama xarit bi nekk Sénégal maa ngi lay ziar bu baax mon frère euh, dama dégg mag ñi naan suba ku xamoon li ngay am doo sonn da ngay toog ba suba nga fekki ko man muy disque d'or di platine di diamant yooyu yëpp ci kàttanu yàlla bëgg naa ko waaye nag lépp teg nañ ko si loxo yàlla sunu borom nañu nekk ci yoon di liggéey rek li mag ñi naan lu jot yomb tant que y a vie santé y a espoir <laughs> jërëjëf